leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen yi nga xam ne yéen a safoo Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree tey rek ci alxemes bi wopp ba coronavirus moom nag mi ngi wéyal rek ay mbiram fii ci Sénégal tey rek test yu ñu jot a réalisé toll ci 2523 ci noonu nag mu am ci 368 yoo xam ne rek ay cas positif lañ ci cas positif yooyu ñu ci am 89 cas contact 279 cas communautaire 11 décès ak 209 yoo xam ne rek daal dinañ leen faj ba ñu wër fanaanoo aw tiis ginnaaw kii di Abdou Aziz mbay nekkoon nag jëwriñ bi ñu fi dénkoon rek wàllum aada ak cosaan nekk tamit directeur de cabinet du président Macky Sall ginnaaw bu mu àdduna démb ci guddi ci feebar boo xam ne rek tëralu ko lu yàgg ci noonu nag Equivox yëpp ñu ngi leen di jaale ay mbokkam di ko ñaanal rek fu mu jëm gënal ko fii mu jóge ñu àddu rek ci mbirum Aminata Lô Dieng nekkoon nag fii ministre du tourisme ci euh, jamonoy Abdoulaye Wade daal dina génn kaso rek néegi ni démb ginnaaw bañ ko àttee rek condamné ko nag deux mois de prison yoo xam ne du ko tëdd ak ñeenti junni yoo xam ne rek da ko war a joxe amende ci noonu nag rakam boobu nga xam ne rek jàppale woon nañ ko ñoom ñaar ñoo bokk àtte waaye ki nga xam ne nag moo nekkoon avocat wam di maître Clédor Ly euh, àndul ci euh, jël na ko ndax dafa jàpp ne rek euh, lépp luñ ci def rek euh, teguñ ko ci yoon ci fàttali rek euh, kii di Aminata Lô Dieng ñu ngi ko jàppoon rek ci arjuma bi ci fàttali rek kii di Aminata Lô Dieng ñu ngi ko jàppoon rek arjuma ji passé di ko toppee li nga xam ne rek moo di violation du couvre-feu ak outrage à agent ñu daal di àddu rekk ci conseil des ministres bi nga xam ne rek président Macky Sall amal na ko démb mu daal di ci jël ay ndogal nag lu ci mel ni rek accident yi nga xam ne dañoo nemmeeku lool dañoo nemmeeku mu bëri lool fan yi ñu weesu ci noonu nag muy gën a soñu jëwrin bi nga xam ne rek moom la dénk wàlluma dem beeg dikk bi ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ngir rek ñuy xool seeni doxalin ci oto yooyu nga xam ne rek ñu ngi circuler ba tey rek ñuy des ci conseil des ministres boobu rek mu amaloon nege ni démb mu daal di dikkaat rek ci réseaux sociaux yi lim xam ne nag moo di mi ngi soññ ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi ngir rek ñu teg ay matuwaay yoo xam ne rek dinañ daal di surveiller bu baax li nga xam ne rek mooy information yi jàll ci réseaux sociaux yi ndax waxante yu ñaaw yi da cee bëri lool waaye kii di président Macky Sall nag yemul rek ci réseaux sociaux yi daal na jàll sax ba ci télé yi ak rajo yi ngir rek ñu gën a li nga xam ne rek moo di programme yi ñuy jàllale di wax rek loo xam ne dina indi jàmm rek ci biir réew mi daal di dem ak yéen rek euh, ba Dakar dem dikk ci coowal maître Moussa Diop ak kii di Omar Boun ba sila maître Moussa Diop nag la mu xëy xam ne rek moo di euh, li ko yóbbee li yépp moo di troisième mandat président bi nga xam ne rek àddu woon na ci ci fan yi ñu génn moom nag la mu jàpp rek moo di lépp lu ñuy def rek ci ndoddam li ki nekk ci ginnaaw moo di kii di président Macky Sall maanaam lu njiig njaag rek mooy njaag ñu daal di dem ak yéen rek fële ca Rufisque Ouest ca cité Bata la fa xew nag di aw jëye ginnaaw nag ba ñu fekkee rek ñaari way dencante daal di euh, faatu ci anam bu ñaaw li waral euh, bile mbir nag kenn xamagu ko ci noonu nag ñii di police scientifique daal di nañ wàcc ci boobule kër rek ngir def lépp lu war rek ngir leeral euh, bile mbir. waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di police bu Rufisque daal di nañu ubbi ab enquête. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV li moo fi jotoon ruus tey ci xibaar ñu leen di jox rek dig daje ëllëg incha allah.